أنت الغوص في غوصة زماني سيدنا ومولانا شريف الفاتم شيخ أحمد ابن محمد التجاني أنت الغوص في غوصة زمان سيدنا ومولانا شريف الفاتم شيخ أحمد ابن محمد التجاني borom Medina Cheikh nee na Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani الحمد لمولاي العرش لشيخ الكرسي لأحمد الله لتجاني البسط لشريف الكنوز هذا كنوز تجليات ورد الحقيقي بصيد الأحمد الأعظم الله كالأعظم البحر كالأعظم الجلال كالأعظم الكمال كالأعظم الجمال برا مدينة شيخنا بسيدي رئيس آل الهدى وأهل الكمال والجلال وكن فيكون بشيخ آل الهدى ودين الإسلام والفردوس والهدى والهادي إلى صراطك المستقيم دومي مولاي الشيخ أحمد التجاني نينا بقرب أهل الكلسم وأهل النور وأهل البيت الله الحرام وآل الغيش والغيب والروح والاسم كالاسم الله الكبير borom Medina Cheikh ne ku sopp Mawlaaya Cheikh Ahmada Tijaani du jaaxle ëllëg ca bés ba hada xikmatullahi wal xakimi bilqiyaama wa fi barzaqi wa fi ikawni كنت كوني سالي في المعدي وفي عبودية في البحر كالكوثر في البحر كالرمز في صلاة نور وتسليم في قطب روح مولاي شيخ أحمد التجاني نور القطب نور أنوار نور شيخ جرجف شيخ تيجان مولاي شيخ ahmada tijaan wallahi yaay sangu jamono yaay borom leen waaw waaw mawlaaya cheikh ahmada tijaan sharif yaay sangu jamono yaay borom leen yaa mawlaaya cheikh ahmada tijaan wallahi yaay sangu jamono yaay borom leen anwaar nuuru sayxu jërëjëf Seexu Tijaan mawlaaya Seex Ahmada Tijaan wallaahi yaay sangu jamono yaay borom leen def leen ni nuurul qutbu ah, nuurul anwaar nuuru sayqu jërëjëf Cheikhu Tijaan mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaan wallaahi yaay sangu jamono yaay borom leer def leen ni bi barakatihi bi barakatillah bi barakati mul jërëjëf Cheikhu Tijaan mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaan wallaahi yaay sangu jamono yaay borom leen def leen ni talxatil xaq bilxaq bilxaq ah, yaa xaqul mu jërëjëf Cheikhu Tijaan mawlaaya Cheikh Ahmada Tijaan wallahi yaay sangu jamono yaay borom leen def leen ni sirru talsam sirru nooru waaw waaw البر قمر الله تعالى مولاي شيخ أحمد تجا والله يا سانغو جامونو يا بروم دفلني بحفظهما بار ذاق الهوى ونور الأختاب الأوراق مولاي شيخ Ahmada Tijaan wallaahi yaay sangu jamono yaay borom le sang bi ne kuntu kaatiman ah, kuntu sirran waaw kun fa yakunu waaw waaw hada sangu jamono yaay borom leer mooy borom leer mawlaaya Cheikh Ahmada Tijaan wallahi yaay sangu jamono boobu mooy borom sangu jamono yaay borom leer def leen ni kunutu kaatiman sirran sirran kun fa yakunu way leen hada jalalun hada jamalun waaw hada kabirun wallaahi yaay sangu jamono mooy borom cheikh mooy borom leer mawlaaya cheikh ahmada tijaan chérif yaay sangu jamono yaay ku sopp cheikh defal ni kuntu katima ah, kuntu sirran waaw waaw kuntu kun fa yakun waylan wa hadha jalalun جمال وهذا كبير شيخ تيجان مولاي شيخ أحمد تيجان والله يا سنغو جامونو موي بورم لير موي بورم لير مولاي شيخ أحمد تيجان والله يا سنغو جامونو يا كسب شيخ دفلني كنت كاتمان كنت سرا كنت سرا كنت كن فيكون ويلك هذا جلال هذا جمال هذا كبير رجب شيخ تيجان مولاي شيخ احمد تيجان والله يا سانغو جامانو موي بورم شيخ موي wallahi yaay sangu jamono yaay borom leer mawlaaya Cheikh Ahmad Tidiane yaay sangu jamono yow yaay borom leer mawlaaya Cheikh Ahmad Tidiane yaa xam yàlla dëkk ak leeram doy nga ñu mawlaaya cheikh ahmada tidiane kuy wari leer ba daj ci cheikh dell mawlaaya cheikh ahmada tidiane sa zaahir yéem na xawsu yi ak seen ñooñ cheikh sayidi ahmada tidiane sa baatin yéem na axtaab yi ak seen cër cheikh sayidi ahmada tidiane saxay bu ëpp na mindeef yëg nañ ko mawlaaya cheikh ahmada tiijaan sa mbaax moo tax nga muccal nu ci lëndëm mawlaaya cheikh ahmada tiijaan sa werd wi mooy dugal nit aljanna cheikh sayidi ahmada tiijaan sa xadara mooy àggal nit ci yàlla mawlaaya Cheikh Ahmada Tidiane sa mbaax moo tax nga muccal nu ci lëndëm Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yaay xutbu bee yaay xawsu bee yaa nuuru mawlaaya Cheikh Ahmada Tidiane yaay loxo nday joor ak bu yàlla mawlaaya Cheikh Ahmada Tidiane yow rek la yaay kenn kisi asamaan toogok sa jëmm doy na yiw abadan anta shamsun wa anta nur mawlaaya cheikh anta xamarullahi taala anta shamsun cheikh Tidiane Chérif ay borom leer anta xamarullahi Cheikh Tidiane anta shamsu anta nuuru ya Cheikh anta xamarul laahi taala anta sham barzaqul maktum Cheikh moo ko moom anta xamarul xaqiqatul munzir mooy sa leer anta shamsun anta nuuru Cheikh Tidiane anta xamarul لا إله إلا أنت شمس شخصي جنسري أنت نور يا يبرم الله أنت حمر الله دفلني شيخ تيان أنت شمس أنت نور يا شيخ أنت خمر الله تعالى أنت شمس برزق المكتوب أنت نور شيخ ما كمان أنت خمر sin mooy sa leer anta samusun anta nooy Cheikh Tidiane anta xamarul la itaala anta samusun qul makta anta nuur yaa kamoon anta xamarul su ngeen defee ni ma wayal leen Cheikh anta samusun anta nooy Cheikh Tidiane anta xamarul أنت شمس برزق المقتار أنت نور كما أنت خمر الله تعالى ثم صلاة وتسليم أمين كتجاني شريف واو أنت شمس برزق المقتار أنت نور كما أنت اللهم صلاة وتسليم أمين كتجاني شريف أنت شمس قل مكتوب كمام أنت خمر الله تعالى وعلى آله كان أنوار الحوار na xutija waaw waaw madinatu sey xutija bu leer yi madinatu sey xutija madinatu sey xutija moo ko moom madinatu sey xutija waaw waaw madinatu sey xutija bu leer شيخ تيجان برام مدينة شيخ تيجان دفلني مدينة شيخ تيجان ولير مدينة شيخ تيجان مدينة شيخ تيجان مدينة شيخ تيجان لي بالله يا خمر يا خب يا غوث يا مولاي يا وسر يا منتهى املي بالله له إلا صلاة فلا يأتي borom leer yaa ngi ni mawlaaya ya ahmada tijaani ya wadaro cheikhu tijaani sharif billahi ya sëtu bu yoon na na ina la i xaasata قدرك عند الله يا نظري ما قلب يا يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى الامل بالله سن لخيتك وان الاخاذة ستك لبد دكي ولو ولو ولو تعظيم قدرك عند الله يا خمرو naan la ixaasata ixaasata kallu gudd lu mu jafe jafe jafe tazim xadrika inda laahi yaa nasru yaa xawsu yaa mawlaaya yaa wazaro yaa muntaxal amali billaahi yaa loxoy ca kaw wa faydu raaxatikal muslali joo يصبحه بحر ولا يمسه يا رب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله سن لخيتك لم يبكي باكن أتاكم مشتكن عربا إلا وفرج عنه الغم ودره يا خطب يا القدوس يا مولاي يا يا منتهى الأمل بالله يا خيتك لم يبكي باك أتاكم مشتك وأنا من إلى وفرج عنه الغم ونذر يا خطب يا غص يا مولاي يا وزر يا منتهى ca kaw antal mala du ida masta damin damin jalalin antal muhasu ila al ahwal tunqidana ya qurbu ya ya ghawsu ya mawlaya ya wasaru ya muntahal amali billahi sunu loxo yi ca kaw antal mu'izu wa antal mustaghasu وأنت المستعان وينجو نحوك زمر يا خطب يا أوس يا مولاي يا وأنت المعيز وأنت المستعان وأنت المستعاذ وينجو نحوك زمر يا قلب يا غوث يا مولاي يا يا وزر يا منتهى الأمل بالله يا لقيتك وفلم تدعى ترعى برو لخو يتكو فلم تدع ألف وين شيخ ترعى برو دتكم فلم تدع لخو تكو ترعى برو دتكم فلم تدع أنفس ترعى برو فلم تدع أنفس ترعى برودتك فلم تدع أنفس ترعى برودتك ضينا فلم تدع أنفس ترعى بروضتكم فلم تدع أنفس ترعى بروضتكم تروي إلى سمرات دينة تجرس يا خطب يا خص يا مولاي يا وزر يا منتهى الأمل بالله loxoy ca kaw laa tantahi shakwatun minni li'afikum li anna joodaka laa yafna wala tijal sarif ya xutbu ya gawsu ya mawlaya ya wazaro ya muntaha amani billahi ya loxoy kaw li anna joodaka جودك لا يفنى ولا يزول لأن جودك لا يفنى رسول الله سما أن جودك يفنى لأن جودك لأن جودك لا يفنى رسول الله سما أن جودك أن جودك لا يفنى ولا يزر لأن جودك لا يفنى رسول ليس أن جودك لا يفنى ولا مولاي شيخ أحمد تيجان سنجبني الحمد لرب البشرية bi bushra fiha sayidil bashar wasalaatu wasalaamu ala sayidina ala sayidi ahmad al muhammadin cheikhu tijaani wa ala alihi ahlil baytil hadratil ilahiyya al fadilatu rahma بحكمتي تفضل يا سيدي محمد الشيخ كلام الأول نصر الولاية شيخ الأكبر والنبوة شيخ الأشغر كي هذا إمامنا البحر قاتم أعمة القطب مولاي الشيخ أحمد التيجاني هذا غوث السمداني بسمد الله هذا sirrul wilaayatil kubra ruuxaaniha muy nubuwatul acdar mawlaaya Cheikh Ahmed Tijaani haadaa baxru wa haadaa nuuru walmaaci walfatxu walrisqu walardu walkursi walcarshu walsamaaci wa jamaadaadi wa shamsi wa sirrul qamari ku sopp cheikh defal nii wan nujuumu wa sirrul jannati wa sirrul nafsi quli ruuxi min amri rabbi mawlaaya cheikh ahmada tijaani anta ruuxu wa hada xaqu wa hada hada aaniyatul hada laa ilaha illa allah xaqa qadrihi qalili rahmaani wa miqdaarihi خليل الرحيم عظيم قليل الله لأن جودك خنول بك رسول الله سما أن جودك لا يفنى ولا يزر أن جودك لا يفنى رسول الله ولا أن جودك لا يفنى ولا أن جودك لأن جودك ñoo la bëgg rasulullahi sabaay anna joodaka laa yafna wala yazuru anna joodaka Cheikhu Tidiane Chérif sabaay anna joodaka laa yafna wala innal maana ila tahmi min masaya wo ya جهمي من مصايا إن المنائل جهمي من مصايا يا وي منائل تهمي من مصايا لقجاكو إن المنائل تهمي من مصايا يا وي منائل تهمي من مصايا من مسايا خليفة والحمد لله هذا شيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولاه وإن المنائل تهمي من مساياه يا ويمنائل تهمي من مسايا لقد رباه وفتن أصحابه على نار حتى استقاموا فيا لله من حاوى وإن المنايل تهمي من مزاياه يا وي منايل تهمي من مزاياه لقد كو بهمات الأو بحال هذا تربية نعم المربي ريب الحق يرضاه إن المنايل تهمي من مصاياه يا ويمنايل تهمي من مصاياه شقتي جن يثقي المريدين من كأس الوصول إلى نحو المربدل زي قد كان مأواه مساياه يا ويمانايلا تهمي من مساياه شقتي جنان القلافة وقد شاعت وراثته أتاه ختم من الرحمن والجاه وإن المنايلا تهمي من مساياه يا ويمانايلا تهمي من مساياه loxo ca kaw la woo damaanun min al-muxtaari mustamilan bi shiicatil xaada ha yarda bi mascaahu inna al-manaa'ila tahmi min masaayaahu ya way manaa'ila tahmi min masaayaahu loxo ca kaw fa laa yumaasilu bahrun lahu madaa ساعي ولو جود حقا من سقاياه إن المنائل تهمي من مساياه يا ويمنائل تهمي من مساياه شقتي جان بحر ندفر غنو درا من عطاياه بحر سجل غنو درا من عطاياه min ataayaawo baxrun jëfar nga ndaw ñi duran min ataayaawo way baxrun defar nga sang bi duran min ataayaawo baxrun siggil nga duran min ataayaawo وبلو في الآفاق منهميرا لا أصبح الناس غرغ فيه جتواه بار دفر غانيو جرا من خطايا بار سجل سنگ بدرا من عطايا رجال ماذا ترى من رجال الله كله شيخ أملتي أدونا بيو buuru yaxsha way oh. barun defar nga ñu ah. durran min ataya oh. barul si ci Tijaani Sharif durran min ataya loxo ca kaw lillahi qad zahara al-haqqul mubinu lana la yuflihul mudda'i habibi da'wa oh. barun defar nga ñu ah. durran min ataya siggil nga ñu dural min xataaya loxota kaw kullu suyuqi fa qawlul xaqi munfaridan min xadratil xaybi inna rabba alaahu bahrun defar nga ñu dural min xataaya bahrun siggil nga ñu dural min xataaya loxota kaw imba الحمد في التصرف في كل أمر بعد توباه توباه بار دفر غانيو درا من خطايا بار سنجل غانيو درا من خطايا لقد كو في كل قطر من الأخطار شورته عمت مساياه بل دارت سوايا waawal nun defar nga ñu turan min xadaaya baru siggil nga ñu turan min xadaaya loxo ca kaw hada alladi mana man xala axlaaqa tamdaxuwo min albaraya ajib almadxi afwaawo عاش شيقي مجتهدا قد عز إدراك ما يحويه معناه بئر دفرنجا سنغ بدرا من عطاياه بئر سجن تجاري شريف من عطاياه لقد معناه بحر فليس العقل يدرك ما وراء تور حجاب لو كان يهوى قلبي درا من عداياه بخر سجل يومي درا من خطايا لقجاك لازم لا وظيمة هور تكفي لطالبيا بين المنافع tijaani shérif mina xataaya loxo ca kaw laasim suba laasim ngoon nga teg ca taalibay cheikh loo ñaan yàlla mu nangu fi dunya wa uxra laasim suba laasim ngoon nga teg ca taalibay cheikh say aajo day faju ah. fi dunya wa uxra laasim suba laasim ngoon nga teg ca Cheikh Sadio day fa dëgg la fi dunya wa ukhra wa way lazim suba lazim ko nga day fa dëgg la fi day fa jo lazim suba lazim nga teg ca taalibe Cheikh loo ñaan yàlla mu nangu fi dunya wa ukhra lazim suba lazim ngoon taalibe Cheikh say aajo day faju ah. fi dunya wa uxra ca kaw akrim bi teral leen Cheikh ku kay kondar xamuloo ayna mal ulama min tibi magnawo akrim suba lazim ngoon ca taalibe Cheikh say aajo day faju fi dunya wa cheikh ku koy dingat xamuloo a la mal ulama minti bi maana way lazim suba lazim ngoon nga teg ca taalibay cheikh say aajo day faju fi dunya wa ukhra takaw summa salatu amin taslimun ilahu ala khairil bariyati amin haqqan ma tahayya lazim suba lazim gon talibay cheikh say aajo day faju fi dunya wa ukhra laqad takaw wa ali wa ala أصحابي فضلاء أولها والكل يخشى لازم سوبا لازم غون غدك جتالي بشيخ سيأجو ديفجو في دنيا وأخرى لازم سوبا لازم غون غدك جتالي بشيخ سيأجو ديفجو في دنيا وأخرى